sant si wuy ci bi di len massawu choona tamit parce que tay weekend la xamnañ ne c'est pas évident jour de fête la aussi mais malgré tout ça ko haute idée bi ngeen am ci sen liguey tax ngeen déplacer wu pour ñeu fekke bés bi ñoo ngi leen gërëm bu baax di len sant li nga xamanteni nak xewna demb na ñu démon ci ben ndaje mo xamanteni liko waral dinañ ci dellu ci légui waaye li xew nekk loo xamante ni lu tiis la ci deru senegal nekk loo xamante ni ci tiis la lu tiis la ci turu Sénégal ndax barab boo xamante ni dañ fa woote ngir xeex injustice maanaam jaay doole ak naka su dul noonu ak fekk lu ñëpp bokk ñenn ci ñun jël ko ne ko ne ko dëndiix barab boobu waruñu faa fekk injustice barab bu ñuy xeexee injustice waruñu fa fekk injustice te dafa mel ni loolu lañ nemmeeku démb moo tax sénégalais yi naqarlu ko ba fu naqarlu yem muy ay jëmm yoo xamante ni jóg nañu daldi ne diw mi kat li ñu bëgg mooy jot ci bakkanam ndax démb li xew gis ngeen ko muy ay sànni ay xeer muy ay saaga wax yu ñaaw muy ñoo xamante ni sax gis nga leen ñu yor ay ay arme ay jamukaay te journalistes yi jël ko nga xamante ni xëy na sunu borom moo ñu suturaal waaye buñ jotoon ci ñun kon xëy na tey jii duñu toog fii di wax mu nekk benn tantative d'assassinat boo xamante ni de meurtre boo xamante ni ñun noonu lañ ko gisee te noonu lañ ko qualifié te tey jii fii ñuy wax ak génn sunuy avocat ñoo ngi nekk di ko xool di ko saytu ngir xool ban suite judiciaire la ñuy jox loolu nga xamante ni jàpp nañ ne warul am ci senegal waratul am ci benn ndaje boo xamante ni moo ngi am ci Sénégal am ñoo xamante ni dañuy jóg jàpp ne am nañu liberté bu toll ni koo xamante ni waxu la defu la yëkkatiwul safaan jëme ko ci yow nga jàpp ne war nga mën a dem jël bakkanam wala mën nga mën a dem yàq li nga xamante ni moom mooy alalam ba démb ñi nga xamante ni ñoom lañ ci àndaloon am na ci ñoo xamante ni ba fii may wax ak yéen dañoo nekk ci traumatisme ci njàqare bu méttee méttee métti loolu mënatul nekk te warul nekk te violence boobu dafa violence physique bi yëpp dafa am benn violence boo xamante ni moom moo ko jiitu mooy une violence verbale dafa am une campagne de désinformation dafa am ben manipulation bo xamanteni ak wax lu deug sosolaté yo xamanteni mom mo jitu li yeb ba jur li tay loolu nak mo wara dak ci réew mi magum jëm ay magi jëm yo xamanteni dañuy tok di wax lo xamanteni woor na len ne li ñuy wax amut woor na len ne li ñuy wax du deug loolu moom moo jur lii ni ñuy xeexee li nga xamante ni moom moo ñu yóbbu woon démb ci place de l'obélisque nga xam noonu la ñuy continuer di ko xeex ak fépp foo xamante ni woote nañ ko fa doomu Sénégal woote na fa woote na ko ndax dañoo gis ñaawteef yi nga xamante ni mën na koo jural suñu réew te dinaa ci dellu siwaat mais li ma bëgg wax mooy que ne politique bi nga xamante ni doomu aadama yi dajaloo nañ ne dañuy dund ci li nga xamante ni moom mooy société humaine dañu ne bu ñu ci jógul xeex li nga xamante ni moom mooy violence doomu aadama dina nekk ndëg ment ci moroomu doomu aadama lom l'homme sera un loup pour lom loolu moo tax doomu aadama yi bi ñu toogee ñu xool ñu waxtaan ci pénc yi dañ ne il faut que ñu inventer politique politique mooy lan mooy li ñëpp bokk nan la ñuy jëlee ñenn ci ñun dénk leen ko ngir ñu fexe ba ñëpp jot ci li ñëpp bokk nan la ñuy fexe ba jël ñenn ci ñun dénk leen ko ngir ñëpp jot ci li ci jiitu éducation ci la bok lenen li santé ci la bok lenen li sécurité ci la jël nak mutualiser les efforts mutualiser les efforts am ñu ñu dénk suñu sécurité amatuñu sécurité am ñu ñu dénk ne bëgg ñu ñu amatuñu santé am ño xam dañ leena ngir sécurité, ngir képp ku askan képp ku ci ci peuple ci li nga Sénégal réer ñu ba nga ne am xam-xam ba mën wuti loo xamante ni moom ngay lu lew su tamit gis nañ ne dafa nasax ci côté ñu gis ne violence mënul continuer mënul di am ci dañu inventé politique violence mënul wéy ci dëkk boo xamante ni dañu inventé li nga xamante prison violence mënul di am ci dëkk boo xamante dañu inventé li nga pardon mooy les trois P la politique la prison la le pardon société humaine yi xel yu sell yi dañu ko inventé ngir ngir ngir violence dañ ci li nga xamante ni moom mooy société kon bu loolu yëpp amee ba tey ñu continuer di gis ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy def politique ñoom ñooy jël violence boobu di ko di ko teg ci seeni way way way way way politique yu yu mel ni ñoom ñu xam ne nag jafe bu rëy am te léegi réew mi fii mu toll gis nañ ne kenn muccatul ci violence boobu te ñu jàpp ne mën naa jur musiba bu ñu ci jógul ñun démb musiba mënoon nañoo dal bu ñu sunu borom suturaalul woon kon loolu jàpp nañ ne c'est missible te jàpp nañ ne tamit duñu ko bàyyi noonu mu dem dinañ ci ñi ci war a wax ñi ci war a taxaw dinañ ci taxaw ba nga xamante ni ñooñu nga xamante ni ñoo doon jëf-jëf ju ñaaw jooju am na sax ay kilifa yoo xamante ni jàpp nañ ne ñoom ay incident rek la loolu du incident rek jëf ju ñaaw la joo xamante ni dañ ko war a condamner jusqu'à la dernière énergie naqarlu ko naqarlu ko naqarlu boo xamante ni fépp foo xamante ni mën na fa egg na fa egg ndax man mii toog fii di wax ak yéen tey démb mënoon naa ñàkk suma bakkan fii nga xamante ni moom mooy place de la nation ñi ma àndal mënoon nañoo ñàkk seen bakkan ndax yéen ñëpp gis ngeen li xew beneen bi nga xamante ni dama koy préciser gis naa fu ñu bind fu bari ne Pape Djibril Fall dañ ko yuuxoo ca manifestation ya demewul noonu ni mu demee mooy bi ñu agsee am na ñoo xamante ni sunu teewaay neexu leen waaye gis nañ fa ñoo xamante ni sunu teewaay neex na leen sant nañ yàlla ci gis ñu ci barab boobu nga xamante ni ci lañ ñu xamee képp ku ñu xam ci taxawal askan bi nga ñu xamee képp ku ñu xam ci xeex injustice nga ñu xamee képp ku ñu xam xam nga ne dañoo jaay tey jii sunuy nelaw dañoo jaay sunu sunu nooflaay dañoo sacrifier lu baree baree bari ngir loolu nga xamante ni tey seetlu woon nañ ko ci espace public bi ba tax ñi war a jàng jànguñu ba tax ñi am métier liggéeyuñu ba tax ñi am dépense mënuñoo mënu am nit ñi mënuñoo am dépense ba tax tey retraité yi seen liggéey mooy wut dépense retraité noppalu la war a def tay retraité yëpp ñoo yor kër yi di daw dépense loolu moom moo ñu dugal ci politique loolu ngeen ñu xamee te ci loolu la ñu ne nekk du côté du peuple loolu moom mooy sunu liggéey bi nga xamante ni mooy bi gën a mag sunu yéene bi gën a mag moom mooy taxawal askanu Sénégal fépp foo xamante ni Sénégal soxla nañu fa te noonu ngeen ñu gisee woon bi ñu duggee politique le 22 avril noonu la ñu taxawee ci campagne électorale bi assemblée nationale ñëpp xam nañ ne ba ñu fa duggee nekkuñu ci xeex benn agenda politique gu jàmbur. waxoon naa ko ne nekk lu ma fi ma sàmba nekk lu ma fi ma demba su ma benn kilifa bu tudd ma demba nag nee na naa bàyyi di wax nekk lu ma fi ma demba parce que moom ma demba la tudd te moom dama ko fee war a nekkal kon li ñu bëgg a wax rek mooy benn way politique. yóbbuwuñu fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale askanu Sénégal moo ñu yebal assemblée national ne ñu yow Pape Djibril Fall ñun ñooy nekk sa kilifa ngal la waxal ñu loolu moo tax ñun waxaluñu fa Masamba waxaluñu fa Mademba waaye askanu Sénégal rek lañ fa taxaw di ko waxal di défendre l'intérêt général quoi que ça nous ak lu mu ñu mën a lu mu lu mu ñu lu mu ñu euh, lu mu ñu jar lu ci góobee gar ko leneen li nga xamante ni tamit waxoon naa ko te dama koy waxaat. te loolu ñu gis démb muy ay ñaawteef muy saaga muy xaste ak muy ña yuuxu ak ña bëggoon a jël sunu bakkan nañu xam ne waxoon naa leen ne leen waxoon naa leen ne leen te maa ngi koy waxaat tey maa ngi koy bamtuwaat pour mu dugg ci seen bopp ak ci seen xel ak ci seen yuur ne lépp loo xamante ni yàq jaral na leen ko ñun defar dina ko jaral dinañu ko jaral ndax ndax Sénégal lañu am réew mi lañu am du ñu ko jëndee dara li juge Kéba Mbaye doon wax nous aimons ce pays jusqu'au vice V-I-C-E-S président Lamine Gueye wax ne j'aime ce pays d'un amour qui m'arrache les larmes Sénégal lañu am du ñu ko jëndee dara bëgg nañ ko bëgg boo xamante ni dañ ko koy feddali fu ñu toll ndax moom rek la ñu am amuñu beneen nationalité wutuñu ko Sénégal la ñu am moom la ñu bëgg Sénégal bii nag ñu bëgg moom la ñu ànd bëgg ànd defar ak sénégalais yi yi nga xamante ni ñoo yeewoo fii ci biir réew mi ak sénégalais yi nga xamante ni yëpp seen yaakaar dafa jeex biir Sénégal ñiy jaar ci désert bi. ñàkk seen bakkan wala ñu egg te seen xel yëpp mu ngi fi ñiy jaar ci géej gi egguñu suñu géej yëpp ay sëg la ak ñi nga xamante ni seen yaakaar bu jeex ci senegal moo tax tey ñu jël ay avion dem feneen daani fi seen doole faggu fa lu lew ñoo ñëpp lañu ñu ànd bëgg àndal tey mag ak ndaw ak xale ngir defar li nga xamante ni moom mooy Sénégal bi nga xamante ni jàpp nañ ne war naa dàq ci réew yi nga xamante ni moom moo nekk ci àdduna bi Bye.